abdulaat borom melal maa ngi sëriñ si de maa ngi soxna maam faati loolu xalaat noo rëy ni Cheikh Abdoulaat ni mbëgg sëñ Bamba yomb la ji ku daa jaamu yàlla ngi ku fonkoon alxuraan ngi ku fonkoon xasida ngi maa ngi soxna maam faati baayu sëñ si jamonoon la boo ko yëgee boo ko yëgut bàyyi la defal na la kum jamonoon dimbali na la boo ko yëgee boo ko yëgul maami soxna man faat yi defal na la découverte tabaski mbokk yi xarit ñuy seetaan ci seen site 28 pro ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ci seen numéro bi nga xam ne ni ñu ngi koy faral di def at mu jot déwénet yi baal ñu àq baal nañ leen yal nañu yàlla boole jéggal ñu teew ay at yu bëri at mi nag euh, ku nekk xam na contexte yi ci xew ak tabaski bi ñu ko dundee waaye yooyu yëpp nag dañ ciy ànd ak mbokk yi fas yéene ànd ak ñoom ñu dem saafonteeg askan wi à travers seen site bi nga xam ne moom mooy 28 pro sunu gan nag kenn dootu ko présenté ndax suñu partenaire la di Mame Faty Mbacké bu sëñ Sidi bu sëñ Abdou Lahad soxna si ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay bu baax a baax. di la ziar bu baax ci tabaski bi di la wax déwénati ñu fekk ko ay at yu bari. waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sangub sang yi. di ñaanal Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal Serigne Sidi Abdou Lahad suñu waajur yëpp ñu ngi leen nuyu di leen fay di leen dalal. merci mhm. tabaski ren tabaski 2020 2020 ak li ci xew. Mhm. Touba nga ko tabaskee comme ni nga ko daan defee rek. Mhm. Euh, ban jàngat nga am ci ren jile. waaw tabaski bi de comme jàngat bi ci ñëpp am rek laa ci am. mooy julli nañ ko ci jàmm li xew ci àdduna bi moom ñëpp ko gisandoo ñëpp ko dundandoo wax dëgg yàlla loolu moom amul leen lu fi mën a kii mooy euh, li xew daal ñëpp ko gisandoo daal. Mhm. Ah, ah, ah, alors par wuute na ak yu daan xew quand même tamit. waaw wuute na wuute na wuute na wuute na waaw. ci la ci gën a sentir ne am na loola manqué loo xam ni maanaam daaw dundee ko ko noonu. Mhm. waaw comme lu mel ni nit ñi daan bëree. wàññeeku na ndax xam nga dañuy xaw di dajaloo mboola yeeg di ko daw ak jataay yi moo tax nit ñi tamit am na ci ñoo xam ne xaw nañ ko yëg seen côté ndax xaw naa metti loolu la alors euh, avant ñuy dugg ci tabaski bi ñu ngi ko doon waajal mais am na lu événement bu ko jiitu boo xam ne ni sa bos la mën naa ni sa bosu sa sëriñ sa maam sëñ Abdou Lahat euh, ren ji wala boog noo ko waajale woon waaw màgg bi moom comme li ma ko daan waxee rek ñun amuñu lul moom biñ ko dalee màggal suñu bopp yàgg na mais comme que yàlla fa dogal dañu am ay kilifa te ñun ci ndigal ak la ñuy woy ci lañuy dox comme que suñu kilifa wax na ni bu ko kenn màggal nañu wàcc ay kaamil togg ay ñam yóbbu ki daara alxuraan yi noonu lañ ko defee. ah ren moom nga def. moom laa def moo tax ñëw ma sax Touba. alors ren ñaata daara nga visité wala boog da nga koy joxe rek yónnee ko ñu defaral la ko. waaw bari na nag dama jëloon ay traiteur ñu togg yóbbu ci daara alxuraan yi. wala ci def naa ko Touba def naa ko ci Dakar. Mhm. Mhm. Dakar on daara wax rek. <laughs> parce que ñooñu parce que tamit euh, defal nga leen lu baax ñoom tam bëgg nañ laa tamit euh, sentir à chaque moment yi ñu mel bu xewee. Mhm. combien daara ak yooyu ak ñaata la. waaw mais xam nga wax lim bi amul solo. ndax loo xam ne bi nga koy def da nga ko defoon te yàlla rek tax. dañ koy bàyyi yàlla suñu borom rek mi tax nga def ko dëgg la kon jarul wax dëgg la mhm. mais sentir seen bopp ci màggal waaw wax dëgg mhm. yàlla mhm. mais quand même yaa ngi woon à dakaar euh, nga santi ne man kii tuubaa na ma fa daan def ak la ma fa daan fekk si euh, ren ji daal vraiment peut-être am na changement mais xéewal la daal man mbégte la woon ci man ndax man lépp lu ànd ak ndigal rek mbégte lay doon ci man sama bëgg dootul feeñ foofu waaw ñan ñoo fa ñëw ci ay kilifa yu la seet si. yu jógee Touba gi xam nga sëñ bi dañu bu ko kenn màggal. Mhm. màggalu ma ko. da nga def rek. waa def naa sama benn daal yónnee. Ah. ci dara alxuraan yi mais màggalu ma ko. Touba tamit yónnee nga fi. waaw euh, sëñ bi jot na ko. Mhm. Euh, sant na la ci gërëm na ci alors woo na la téléphone wala boog dem nga ci moom ba ban yëg-yëg la am moom itam bi nga defee loolu. déet sëñ bi moom wax ji daal moo di. Mhm. màggalu sëñ Abdou Lahad ren kenn màggalu ko sëñ bi nee na boo kenn màggal. kilifa la ñu am moom la ñuy déglu lu mu wax loolu la ñuy def lu mu waxul duñ ko def nit ki nag sa kilifa mënut a wax lii ba pare ngal bëri ko naan da ngay def léegi da def laa wala boog ñun xamuñu loolu alors euh, moment dund euh, jàll nañ ko muy mhm. moment de confinement mën naa moom wax wala couvre-feu mhm. euh, soxna maam Faty nga xam ne da daan dem ci yëngateeg nit ñi mhm. di liggéey am na lu mu def ci yéen ci côté maanaam koom Mhm. ban est-ce que amul dara lu mu yàq ci seen liggéey ak noo ko sentiree. waaw man de wax dëgg yàlla yàqul dara man ci sama wàllum liggéey waaw sama liggéey moom yàqu ci dara ndax yàlla dogal na mi ngi doxe na nam daan doxe waaw leneen li nga xam ne moom lu wàcc ci àdduna bi la ñëpp ci jotandoo loolu ci kaw ñëpp la dal mu koy sant yàlla tamit ab jaam day sant yàlla ndax suñu borom moom de ma sant yàlla moom feeg mi ngi lay may ak dund ngay man di xëy di dox say soxla di wax rek santal yàlla leen des lépp bénéfice la. Mm-hmm. boo ko ci ñi doon wax naan sonn nan ñun kat jaaxle. musuma ko wax eh. musuma ko wax te duma ko wax. gëm nga kon feebar bi yow. gëm naa ko bu baax. bu baax mm-hmm. loo ko gëmee yow ci noo ko dundee. gëm naa ko bu baax ndax xam naa ni lu am la. Mm-hmm. waaw. Eh, noo ci orienté sa yeneen ñi nga xam ne maanaam jàpp nañ ne moom ba léegi eh, ay blabla la moom mooy ñëw noonu nit ñi waxi nit ñi wala politique la ban message nga leen di jox. ah parce que koo xam ne ni ku ñuy déglu nga tamit. man de li may am di leen wax rek mooy nañ gën a moytu ndax dina màtt ak du màtt daal bul jox sa loxo man loolu laa gëm gën a moytu daal di gën a fagaru tey ñaan yàlla suñu borom mu may ñu. waaw. Euh, daaw yaa ngi ko doon féete ak say doomu baay. Mhm. ci tabaski bi ñu dellusiwaat ci. Mhm. Euh, ren est-ce que noonu la demee waat. waaw noonu la demee waat. loo sentiraat ci ñoom. kontaan. Mm-hmm. <laughs> kontaan ñu bàyyi seen i xar foofu. billaahi ñëw fi sama kër. Mm-hmm. loolu lañ loolu lañ ko defee waat billaahi. ne dañuy fekk fas yéene tabaski ak yow. ak man ak yow. billaahi bi ñu ñibbee. sama xol dafa sedd rek. alors mënuma leen a fay. Ah, ci biir nag. Mm-hmm. Euh, laaj la boo xam ne foog ma laaj ko. Euh, est-ce que tamit doonul woon gën a neex. nit ñi seetaan di xam. ne Mame Faty kat def na maanaam euh, comme trois solu benn bi lakk la benn bi kii mais ki ñu koy lakkal anamu. <laughs> def nga <laughs> non laaj la bu ñëw rek ah. du ma ko yóbbante de sa xarit kooku du ma la waxagum tur bi <laughs> waaw. moom daal ñu ngi sant yàlla. <laughs> ñu ngi sant yàlla baax a baax. ana ana ñu ne ki ñu koy ngi sant yàlla daal ñu ngi sant yàlla. kenn du ko xamagum ñu ngi sant Serigne Touba. mën na nañoo xam ba xaar ba ci kanam kon. waaw dañu xaar ba ci kanam. alors euh, mais nag euh, jigéen ñi. Mhm. léegi nag war na noo mën a xam ci ne li xew. Mhm. lu moo nag mën a juróomi weer. Mhm. mbaa lu ko ëpp mhm. yàq amut mhm. Mhm. diggu nañ ci benn context boo xam ne am na lu bëri lu mu changé ci jikko yi continuité la war a doon ci yéen jigéen ñi nga xam ne souvent yéen a ngi dem ci ay xew mën naa ne ay njëkkee ndayalee magale loolu noonu yéen naka ngeen koy dundee ak loo ci xalaat yow ah ni ñu dundee comme ni ko gisee rek ni ko ñëpp gisee waaw ah, metti naka soxna si <laughs> ndayale bi kon war na fee jaaree maanaam effacé wu ah lépp mën naa ne de. déet mën naa ne lu ngeen mën naa ne ci nan. lépp mën naa ne rek comme ni nga ko waxee. sant sant leen ci bu baax nii bi nga xam ngeen xaw ngeen a wàññi yàq bi. ay yàq nag euh, ñun nag daaw ñu yàq ñun. waaw ñun nag ah ñun daal daaw ñu yàq xaw ma nag ndaye la xaw ma ceeb mais ñun daaw ñu yàq. comme tabaski bi nii yàqoo ci. mukk ci àddina. ah kon moom laa la bu ndayee la bu ndayee la amoon nu ngeen di def. def farata. génne. déet def farata rek. maanaam ndax nit koom loo mën def ci àdduna il faut nga génne. téeméer ñu ne ab junni loo mën a def ci àdduna da nga génne waaw mais loolu mais xam nga téeméer ñu ne ñu ngi koy weccee ko junni peut-être <laughs> bu la joxee téeméer ngeen loolu noonu loolu noonu lu tax loolu loolu xañ wax nit ñi la rek hmm. waaw war nga mën a génne temps rek nga joxe ko sans maanaam nga xalaat ci kii dama ko war a jox delloo lii jox na ma temps lii laa ko war a delloo message la boo xam ne il faut ngeen apporter ko parce que lii xew moom ñu bëri sonn nañ ci waaw nit ko nekk la nga seq ak moom rek hmm. waaw nit ko la nga seq ak moom rek moo am solo ci loolu lépp mais xew yu quand même wàññeeku na wàññeeku na bu baax a baax kon koy sant ngeen ci. waa xam nga ab jaamam lu ñëw ci ngay sant. Ah. lu ñëw rek nga sant. lu ñëw rek ngeen sant. Mhm. alors ñu dellusiwaat fii ci Touba. Euh, mhm. sa mbokk yi. sa mhm. xarit yi jigéen ñi nga wëllëranteel. say doomu baay mën naa ni souvent ñu ngi leen di dégg tamit ci maanaam yenn yi nga xam ne moom mooy xew ci jamono ji. alors mën naa ne wax la boo xam ne peut-être dana touché kenn ki keneen ki bu ko laal. Mm-hmm. diwkat ñu ngi koy seen maanaam dafa mën a kii dafa mën a yàq dafa mën a sañse mm-hmm. te ñu ngeen doon ay borom yu barke mm-hmm. loolu bu ngeen ko déggee ci ñeen ñi nga xam ne ñoom ñoo koy wax naka na leen def à votre fort intérieur yéen ñi nga xam ne yéen a koy dégg dégg comme lan comme maanaam ngeen dégg ñu ne diw mi kat yàqkat la wala war day wanewu day pasar pasare mm. ah, day wane ne doomi kilifa la doomi soxna mm. souvent ñu koy wax mm. rawatina bu ngeen génnee nag fii dem ndakaar ngeen ñëw ci beneen beneen vie changement da ci am ah dañ koy wax kon. ah waaw bien sûr. Eh. dañ koy dégg ñun ñi ci wax ci terrain bi. dañ koy dégg mën na nga xam dégg yooyu man. souvent internet bi ñi ciy wax. du ma kenn du la indil message yu ni mel. seq ma ko doomu aadama. loo seq ak ñoom. jàmm ak salaam. jàmm salaam. waaw ak lan. jàmm ak salaam rek jàmm ak salaam ci la lépp nekk. la lépp xaj waaw waaye sequma ak nit ay demalante fekkalante. Uh-huh. loolu sequma ko kenn. ana ana sa bu baax bi. mi ngi fi di baax. yéen a ngi waxtaan. bu baax ñu ngi lay orienté ci moom. bu baax ngay dem di ko dolli ay. moom moo ñu ñaanal. waaw mais bu ngeen bu leen dee ñaanal yéen da ngeen koy dolli ay ay ay tamit euh, ay ko ay mën naa ne moom soxlawul sax conseil mais xam nga day am loo xam ne maanaam diggante njaboot la ak waajur bi. Mm-hmm. xam ne moom mooy am ci dëgg-dëgg. Mm-hmm. ci dolleeku. Mm-hmm. muy jóge ci njaboot gi dem ci way waajur bi day am souvent. yéen lu ngeen koy dolli souvent. xam nga moom euh, moom suñu sëriñ la. wala man bokk man mooy sama sëriñ nit nag boo sukkee ki sa kanamu sëriñ dangay ngay jëflanteeg moom ni taalibeeg sëriñam di jëflante man su ma toog ci moom du ma gis ni ma a jur de damay jàpp ni maa ngi toog sama sëriñ Tuubaa kon kooku man ak moom amuñu ay kii ak doole. maa ngi ñëw <laughs> euh, fi ma doon xam nga ci nawet la ñu nekk. maa ngi ñëw parce que loolu message bu ma dégg moom mooy que diggante. Mhm. baay ak doom mhm. danga koo dindi waaye da ngay jàpp ne kii mhm. mooy sa sëriñ mooy sa lépp mooy sa bunt mhm. waaw gannaaw bi nga xamante ni maanaam dem na ci dugg nañ ci maanaam business bi wala liggéey bi euh, am na benn entreprise boo yoroon dafa lëkkaloog wàllu mbay wala beneen vie la loolu entreprise bi moom loolu beneen beneen kii loolu à la leneen leneen la waaw loolu leneen la ñi ne jàpp ne yow yaa ngi ci mbay meeg yooyu da yori tool waaw ñu ngi góorgóorlu de loolu xanaa ren la commencé. déedéet. ça fait des années. waaw war na man ay ñett ñeent yooyu. Mhm. loo gis ci mbay ba dugg ci. macha allah. Ah. da nga xalaat ne maanaam jigéen daal warul nekk maanaam di yéeg avion ko wàcc rek léeg-léeg dafa war a maanaam. Eh, takk sëram dugg ci tool yi. dëgg ko yore ko waaw. moo tax ñu nekk ci. Ah. Mhm. yaa ngi ciy gis sa bopp. bu baax a baax. Ah, sama réalisateur. Mhm. wax na maanaam yow yemoo ci maanaam. Eh, bay dafa am lu nekk. il faut nga leeral ko. Mhm. maanaam li ngay bay la bëgg a xam. Mhm. wala boog moom la bëgg a xamal askan wi man sax xaw ma woon ne sax maanaam soxna si ndeke dafa am yeneen xeetu mbay yu muy bay yu dul maanaam yuy jàpp ne moom lay bay. Mhm. mbayum lan la. wax dëgg yàlla daal ñi ngi bay bayum noor ñi ngi bay bayu nawet waaw. fu yi nekk. am na yoo xam ne amee naa ko Pout. Pout waaw. nga ñu ñu ñëw visiter ko ànd ak yow. amul benn problème. waaw ñu topp la foofu noonu comme lan comme lan ak lan la. amul benn problème bu fekkee foofu. maa ngi fay mbay mbayum noor bu fekkee nag fii ci Daaru Salaam mhm. maa ngi bay bayu nawet euh, mbayum noor bi ay xeetu légume la waaw citeel ñu ko ah déedéet <laughs> yi alors message bi nga xam ne moom ngay euh, jeexalee ci mm. maanaam tabaski bii nii ak li fi jot a xew mm-hmm. ak tamit ban dénkaane lay doon rawatina sa mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo la ñoom ñooy roy ci yow parfois tamit bëgg a mel ni yow mm-hmm. mën naa ko wax su bëggee mën yow maanaam bëgg xam ne maanaam lu baax ci la ci nga nekk ci lan bëgg a jaar mhm. muy rawatina mbay mi bu mhm. gisee ak sa âge peut-être mhm. jàpp ne war nañ cee dugg ban message nga leen di jox waaw man de li may wax àdduna moom dara yombul mooy bi njëkk li ki topp moo di nit ki da ngay xam sa bopp mooy bi jiitu bi ci topp nga xam li nga bëgg ak si nga jëm soo ko xasee def rek sa àdduna da ngay daal di noppaliku lu am solo la kon donc ñoom jigéen war waaw nit ku nekk xamal sa bopp. Mhm. xam li nga bëgg. Mhm. xam fi nga jëm. Mhm. soo ko defee da nga daal di noppaliku. rek jeex. waaw soxlawul maanaam yeneen. déedéet. Ah, leneen loolu da lay taal xam-xam fi nga bëgg a jëm rek. Ah. daal di tegu ci yoon bi. léeg-léeg daal nga fàtte grand boubou fële. lan wala marakis nga fàtte ko. lépp fa laa koy bàyyi. bàyyi koppati borom koppati nga fàttali leen <laughs> <laughs> merci mbokk yi seetaan ci seen site euh, mu nekkoon seen découverte spécial tabaski 2020 ak soxna Mame Faty Sidi kon nag euh, wax dëgg yàlla wax ki sax du mën a bëri mooy leen euh, ginnaaw bi ma sante sama ñaari waajur maa ngi gërëm sama mbokk yi mooy sama doomu bàyyi aw ma seen fay bëgg nañ ma yamaliwuñ ma ak dara ñoom ba ñàkk boo ma fekk ak ñoom sax mm-hmm. dama leen ko ñaanal man maay seen bàjjan lu ne laa leen wax lu ne laa leen def te lu ma leen def neex na leen te man mën naa ne man ci ñi gën a ndaw ci waakar kër sëñ bi ci laa bokk boo ma fekkee sama taawu pàppa man da naan moom moo ma jur te lu ma neex laa koy wax lu ma neex laa koy def wax dëgg yàlla daal nit ñu baax lañ bëgg nañ ma jàmmal nañ ma wax dëgg yàlla aw ma nag seen fay maa ngi leen bàyyi ak yàlla yàlla ma leen yàlla fayal waaw di nag samay xarit samay mbokk samay am ni jàmm bàyyiwuma kenn mu ci sama famille ñeeg ndey kër baay bàyyiwuma kenn lu ma xewle ñu taxaw ak lu mu maa doon nag bu ma gisoo gis leen wax dëgg yàlla daal weetuma ci benn côté waaw. am na solo mbokk yi kon rendez-vous bi Pout la ci. incha allah ca tool ya ñu xool maanaam pour une première ñu découvrir leen ko ak seen site jërë ngeen jëf Bekkaay Ndiaye ci caméra bi ci kàddu gi Sidi Diakhaté dig daje ci beneen invité bi nga xam ne ñu ngi ànd ak yéen ci tabaski 2020 jërë ngeen jëf